salaamaaleykum mbokk yi man docteur Cheikh tijaan Dieye di jëwriñ ji ñu dénk hydraulique mooy ndox mi ak assainissement maanaam toppatoo mbiru lépp jëm ci ndox maay waxtaan ak yéen xam ngeen ni monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye génn na def woote woote bu am solo woo askanu Sénégal yépp ci bisu mobilisation boo xam ne moo ngi ko tuddee setal suñu réew setal suñu réew nag dafa am solo setal ko ci suñuy dëkkuwaay setal ko ci nga xam ne mbalit mi nga xam ne moo ñu wër pour que mu parce que li set mooy li baax mooy li indi wér gu yaram mooy li tax ñu mën a dund ci dund gu ñoŋ waaye setal suñu réew mi li tax mu jublu ci itam mooy ñu prévenir maanaam ñu ñu gàttandu nawet bi nga xam ne mu ngi ñëw ndax nawet gis nañu ne at yi fi passé saa su nekk day indi loraange bu metti ci askan wi te bari na lu mu lu koy lu koy waral euh, canalisation yoo xam ne yii du mën a ndox mi du mën a dem ndax dafa fat ndax salte ñu ci dugal wala ñàkk nettoyé buñ ko ñàkk nettoyé laata nawet di ñëw ren nag ANACIM muy agence bi nga xamni moy topato walu inondation wax nañu ni nawet bi dina bari ndox ci katanu yalla te wax nañu sax ni dina am jamono yo xamni phénomène extrême manam ndox mi dina bari sax ba jéggi dayo lolu nak duñu tok di sétal dañuy and ñun ñepp ndax président néna yorin bii ñu bëgg yoré Sénégal nekatul yorin bo xamni état bi moy nek rek ci kaw di décider di jëf mom kessé nit ñi tok may bamtu nak li nga xamni ñom ñaar ñepp woté nañ ko man ci euh, sama wàll di ministre mi yor mbiru ndox. may ñaan askanu sénégalais yépp génn ñu xam ne suba le citoyen moo génn le patriote moo génn le sénégalais civique moo génn pour toppatoo réewam pour nettoyer ko waaye du doon rek des ci benn bés dañu bëgg ñu changer comportement yi dañu bëgg bu ñu ci jógee ñu continuer di setal suñu gox ak suñuy kër ak suñuy dëkkuwaay dañu bëgg bu ñu yeggee ci tabaski bii nga xam ne ci lañu jëm ñu nettoyer laata tabaski di ñëw waaye bu buy tabaski ñëwee ñu moytu li nga xam ne dana ci tukkee lépp ci ci li ñuy jëfandikoo ñu sànni ko ci ci ci ci canaux yi ak ak canalisation yi mu koy fat te buñ ci jógee ñu continuer waat nettoyage bi defar ba réew mi set réew mi ñëw te bés na boo xam ne danañ ko continuer muy nekk ay bésu setal weer wu nekk mu am lu ñu ko tuddee am ministère bu ko bu ko toppatoo waaye dootul dakk mukk dañ ci bëgg mu jóge fi saa su ne rek sénégalais yi di defar à chaque fois setal set setal ak euh, curage ak nettoiement incha allah.